ay doomi wakaam ñoo taxaw def benn say fas yéene rek defante ak ñi nga xam ne ni dañoo lànk ni kenn du fa tabax lii di complexe sportif bu wakaam ña jiitu sa xeex ba mooy maire ba ak ki jiite union sportive bu wakaam moom moomee sax jox nañ ko ay yoon yoon convocation mu wuyu ji yoon man de je suis républicain quoi ku la man ku ma convoqué man ma dem quoi. defeere naa euh, euh, convocation yépp waxtaan naa ak ñoom amul benn problème. maire bu commune bu Wakaam taxaw fas yéene rek dem ba jeex tàkk si bile xeex bile complexe def si nar a xar tànk tubayam ba ñu jëmaal ko. le problème mooy ba bu ñu bëggee tere liggéey bi on a face parce que bu fekkee dafa laaj lu mu laaj daal wax nañ ne dañ koy def bon léegi amul kenn ku ñu tere liggéey bi actuellement on est en train la mairie c' est l' autorité de de de ce cette commune euh, mairie bi ànd na si te dañuy def li ñu war a def ba mu mat sëkk. mu di complexe boo xam ne nii ñu ko tabax si ñetti toll na si ñetti téeméer million ak juróom fukk si bërëb bi sax liggéey baa ngi wëy. waaw liggéey bi comme gis nga ko terrain basket bi pare na jënd nañ panneau yi ba pare euh, bu neexee yàlla semaine prochaine ñu installé ko euh, magasin au Auchan bi commencé na donc les travaux de fouille mu ngi nii moom la ñu terminé nii semaine prochaine ñu commencé teg les semelles balaa fin du mois bi tam ñu commencé siège bi. mu di projet boo xam ne lu ëpp téeméeri xëy. pour ndaw ñi daane sa tukkee dina tax nag ISO am siège lu mu yàgg bëgg mu di association boo xam ne li mu am si at xayma nañ ko si juróom-ñaar fukk ak ñett.